mbokk yi ba tey ñu ngi leen di nuyu saa maa ngi lay siyaar di la nuyu. waa ñu ngi dellu siyaar bu baax a baax. tey ma fekk la fii ci ngénte ki nga xamante ne mooy Bassirou Ka seen relation yéen ñaar lal la. fekkate nga ñu fii <laughs> waaw tey boo xoolee ay kilifa yu fi toog yëpp nga xam ni bas ni ku baax la te it Bass dafa am dëgg yàlla ba ñu xamante nag toll ci benn at mi ngi bëgg a yàgg tuuti ba léegi nag wax dëgg yàlla dañu waxtaane lu bëree bëri. lu may conseil lu bëri bëri wax dëgg yàlla yéeneem chaque jour mu ma koy wan di ma ko wax waaw parce que tamit kiloy lay ñaax ci dëgg du benn yoon du ñaari yoon jàppale kooku ni ko baax te nit na ko ko yëg rek ko sonal bisam bii boo si gisee ñoom ñoo jaar nii gis ci mbër yi yéen fi yéen mbër yi Cofa Gueye ak yeneen journaliste yi ak ñaari kilifa yi nga xamante ni bokkuñu fuñ jóge te it ñoom ñëpp ay nit ci diine nga xam ne dëgg yàlla bas ku baax la. mënuñoo waxtaan ba yeggal fi mu toll nii li ñuy dégg ci combat Sa Thiès taxaw na taxawul yàqu na am na keneen ku nekkaat ci suuf am na beneen promoteur bu ko bëgg am na yeneen combat bi ñi nga xamante ne taxaw nañ pour bëgg sa kombaa combat yëpp ba lan moo tax mu taxaw ba ba. waaw xam nga guddi toll génnee xaalis yombul du dëgg. te combat bi même bu xaalis bu bëri moo ko taxawal dina am benn somme benn fon boo xam ne da koy taxawal te loolu promoteur bi lay jógee ki waxoonoon na ak ñun nag waxoon nañu ak ñun digg yàlla xëy na yàlla ak dogalam jaam ak pexem sotteegul boobu ba léegi waaw mais man moom ba basé wu ci benn promoteur. noonu dégg naa ni am na keneen koo xamante ni mu ngi ci suuf mais sori ngeen ci lool. su amul ci suuf sax parce que ñu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw di waxtaan ak ñoom waaw dëgg yàlla. Père Gaston seen diggante fan la toll ci combat bi. yaa ngi tudd Gaston di ko tooñ ak gi Gaston mii keneen ak keneen. waaw ku ma ci waxtaan kuñ ci waxtaan tam ba tënk ba jubóo. wax dëgg yàlla pare nañ pour jël combat même adversaire bi lañ lay proposé Garga Mbossé wala am na yeneen adversaire waaw am na Garga Mbossé lu moo moo ci kii quoi moo ci ëpp doole Garga fi mu toll nii boo xoolee Bantamba keroog biñ ko jël dafa mel ni am na lum la guuxal mais wanu la ko yéen ñaar kan moo ci gën a xiif sa morom man xiifuma ko de man ku ma mën a jël ndam ndam laa xiif ndam rek laa xiif ci kaw jëmaaram xiifuma keneen leneen nee na combat bi yow dafa mel ni yaa ko bëgg mu ne mais defal ndànk rek nga taxaw déglu ko ba arbitre ba avance ñëw ci yow ñëw ci moom di nga xam ne combat bi gënoo ko ko bëgg gënoo ko doon xale ëppoo ko bëre. waaw moom moom man maa gën xale man maa gën a xale mais mbiru dara ba dara sax xam du ma wax ci moom lu ñaaw mukk ma mais nag gën a bëgg moom yooyu yëpp ay waxi waxi kii la rek xam nga gën a bëgg mooy lan mooy ki jël avance jàmbur. jël xaalis bi def ca la ca war mooy dem seetay mbokkam dem entraîner ba yow xam nga am na ñoo xamante ni tey balaa arbitre sifflé di nga xam ni ki yee gën a pare kii loolu da ciy joué gën a bëgg da koy da koy da koy wane. Garga Mbossé bu bu ngeen bu ngeen simmee ko am tout moment yaa koy gën a pare. waaw man gëm naa ne moom dëgg yàlla mu nekk ci jàmmam di nekk ci forme ma nekk sama jàmm nekk ci forme man damay gëm ni chaque jour maa ko war a doole jour damaa gëm ni ko war a ëpp doole parce que bokkuñu ni ñuy liggéey. ñu bari ci lan nga jàpp ni mooy seen avantage ku nekk yow lan mooy sa avantage parce que ñu ci bari nee nañ xeex avantage su Garga Mbossé la bi sa avantage la euh, nan nga gisee loolu. waaw man nag mën nit mën na mën a xeex waaw mën ngaa dóor benn ko rocce ko dem mais taxaw ma di xeex moom yàlla xam ne ko def. taxaw samp waxuma Garga ñemewut de. ñemewul taxaw ak yow samp jaag. moom bu dee xeex mooy fooram wala yooyu nga seetal boppam parce que tamit nit mën ne bëree dóor Garga telewul bëre telewul bëre de sama gis-gis ak li ma ci moom telewul bëre. waa waaye nag mën a bëri gaa na gaaw da cee am solo. waaw cee am solo. waaw man dama mën a bëri ci li may mën a bëri ci laa gën a gaawee loolu dong la loolu. combat bi de loo mën a xam mooy amateuru làmb yeeg askanu làmb yëpp bëgg nañ sa diggante ak Sa Thiès. waaw encore daal promoteur bu ko bëgg rek incha allah bu ñu seetsee ñu waxtaan tënk ñu seeti leneen waaw loolu daal fu mu toll moo fi nekk.